uh, we demand a full um, investigation into this matter and uh, whoever is found wanting should be brought to justice Um, ñu nag li ñoo laajte mooy ñu def gëstu bu mat si lile te képp koo xam ne moo def ñaawteef bi ñu gis ne luwaa na ko teg loxo comme que police officer nga rek warta tax ne luwaa du la teg loxo gis neen tam kuréel bi seetu àq ak yelleefi doomi aadama si réew mi yëkkati neen kàddu si lile ñu ngi yaakaar ne nag gestu bi su taxawee dinañ ko def te benn dugalante du si am te nag mu nekk gëstu bu gaaw bugguñ mu am ay fukki at dara du si génnee dafa métti ne ñu ngi si dëkk boo xam ne sànni woon karta pour wéccute mu am ñaawteef si waxtu bi fi Yaya Jammeh nekkoon ba tey ñu ngi amee ay place yu kawe loolu nekk na loo xam ne du yoon. were involved in atrocities um, in the Jammeh regime are still in high offices in our police departments, which is just, which is just, which is just wrong. And we uh, condemn what's going on right now.